salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien président Bassirou Diomaye Diakhar fay recevoir na kenn ci njiital union européenne waxtaan nañ ci nan la ñu mën a def ngir suñu diggante ñu ak union européenne mu gën a am wegeel gën a am partenariat boo xam ne dafay gën a am respect. Cheikh Tidiane Dieye ne xaalis bi ñu jëloon tollu ci quatre cent cinquante neuf milliards ne dañuy jël ndoxu géej gi usine de dessalement maanaam usine boo xam ne dañ koy fab. mu suppar ñi ndoxu géej gi ba ñu mën koo naan mën ko sangoo xaalis boobu dafa mel ne dafa bëri luubal 459 milliards yooyu daañ ko audit ba xam fan la dugg ak fan lañ ko def Ousmane Sonko député assemblée nationale yaa ngi koy xaar FMI nee na na Sénégal teggit loxoom ci subvention yi président Macky doon def président Macky Sall dafa foboon euh, courant bi ak essence bi ko woon ko ci lu war a tolloog 800 milliards ngir nag fexe mbir yi bañ a yokk loolu la efféminé nañ ci teggi sunu tànk ndax borub Sénégal jéggi na dayo jéggi dayoo goo xam ne diir bi fi Bassirou Diomaye fay di ne juróomi at yooyu bu doon fay bés bu nekk cinq milliards du tax bor bi buuse waaw loolu indi na jafe-jafe foofa ca Podor baykati soble yi ñoom ñoo seetlu ne ñu leen di liggéeyal li ñuy fayeeku dafa cher coow lu méttee am ca diggante alkaati ya ca géejawaay ak dawalkati kalandoo yi foofu waxinam ñin zaat ba waa kalandoo ya dem fekk ji police ba diw xuloog ñoom musiba naaru laay waaw euh, Fulbert Sambou Didier Badji ak quatre-vingts dossiers yoo xam ne ña seeni bakkan rot ci li fi jot a xew ci Sénégal ñu ngi toog ba léegi di xaar justice fan la mujjee kii euh, seen document yooya wallaay wallaay Kaolack nag ñu yor garage baa ngi naqarlu war gaynde yi ni ñuy nangoo seeni client yàlla nañu yàlla may mais bal bi duggut